ñoo ngi amaan mbégte lool ci dellu siwaat ci ak yéen di ñaanal ñi nekk ci biir réew mi di ñaanal ñi nekk bitim réew ñépp fas yéene wéyal waxtaan wi ñu tàmbali woon jamono yële mu jëmoon ci wàllu julli ak yi nga xam ne moo ci aju ndax xam ngeen ne waxoon nañ ne danañ tàmbaliwaat di nafar suñ bunt yi nga xam ne ñoo jëm ci julli liñ ci mën a jànge bari lool waaye nag ñi di ko def bis bu set ay yoon yoon yoon maanaam léeg-léeg ñu def ko juróomi yoon ci bis bi kon day mel ne jaadu na léeg ñu dellusiwaat nafaraat loolu ñuy def xoolaat jeexital yi nga xam ne moom lay def ci ñun waaye xoolaat rawatina ni nga xam ne noonu lañ koy defee ak yi nga xam ne moo ci aju ñoo ngi beral am nuyoo soppee ak am di jàmm yépp rawatina nag kilifa yi ni ma koy baaxoo di waxe te génnewuñ ci kenn ni nga xamee ne bu ñu waxee doomi soxna yi dugal nañ ci képp ku jullit bu waxee soxna yi dugal nañ ci bépp soxna daanaka lool rek mooy baatu kilifa yi ñi nga xam ne ñooy topp baax ñoo ngi bég ci ñoom bu baax di ñaan suñu borom defal ñun ñëpp ñu baax waxoon naa ne sama maam jee ca caaro yi maam kinne caam moo ko tudde woon mas baax tur woowu ñaare ñu bari buñ ma wooyee ne ma maa ngi déglu almisbaax wax dëgg yàlla damay bëgg lool te sama benn wëlëre bu baax ne woon na ma li wane ne nit ñi jàmbaar lañ mooy waxtu yu émission bi di jàll xaw naa teel ma ko doon yéem waaye léeg ma yëg koo xam ne heure boobu daf koy fekk mu jóg bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax guddi mooy saxaar gi nga xam ne moom la góor yàlla yi di yéeg ngir àgg ci seen borom allaylu mattiyatu rijaal loolu lañ koy waxe kon nag léeg li ngay rawee nit bu nit ñi di nelaw ci la ko nit ñi di liggéeyee góor yàlla yi moom dañuy góorlu ba li ñuy def ci bëccëg bépp ñu koy defandoog yow maanaam julleendoog yow suba julleendoog nit ñi tisbaar bu tàkkusaan jotee ñu julli ne ñëpp bu timis jotee ñu julli ne ñëpp bu gee jotee ñu julli ne ñëpp waaye nag bu nit ñi di nelaw ba jëfuñu ñoom it ñuy jëf nag ma ne leen ndekete loolu ci la nit di jaar ngir raw ay moroomam te loolu mooy naafila da góor góorlu ba matale farata yi waaye am loo mbakkar feggul sa bopp am loo mbakkar sa bopp moo tax naafila am solo lool suñ borom nee na sama jaam du dañ di ma jege jegeñ lu ci naafila yi ba ma bëgg ko kon ndekete loola day tax lu ne am te bëgg yàlla moom lu ne xaj na ci am na ñoo xam ne seeni nawaafil mooy jàng alxuraanul karim léeg-léeg nit dem ca ba am ca fatxu wala nit dem ca ba am ca kasfu wala nit dem ca ba euh, jaxasoog boroomam jaxasoo goo xam ne su ko waxee bu ko waxut yépp moom ci boppam day am yëg-yëg am yu neex ci moom yoo xam ne ku àggut foofa du neex ci yow nga xam ne tey bu déggoon waxi caaxaan daf koy fat bu dégloon misik mu mu lëjal ko waaye buñ doon jàng alxuraan wala ñu naan yàlla nee na fii ba suba muy gën di sedd xolam di gën di neex ci moom loolu nag xeetu defaru la yal nañ ci àgg ñun ñëpp ndax ku ca àgg rek sa affaire tàmbulee baax <coughs> ku ca àgg rek sa affaire tàmbulee baax kon yal nañ ci àgg mu mel ne suñu binde almisbaax yi biñ waxee ne dañuy waxtaane waat julli war koo jàng dafa am yu ma bëgg ñu bàyyante ci xel mu yooyu nga xam ne moo jëm ci julli ak yi nga xam ne moo ci aju ci biir julli am na yuñ cay gis mu nekk ay farata ñu koy wax faratay julli am na yuñ cey gis mu nekk ay sunna ñu koy wax sunnay julli am na ci yoo xam ne dañ koo sartal ci julli gi ngir julli gi mën a wér am yoo xam ne mooy yàq julli yooyu yëpp ay tombi waxtaan la yoo xam ne bëgg naa koo def ci ab jotaay insha allahu taala ñu ngi ñaan suñu borom may ñu ñu àggale ko jàmm ndax ki nga xamante ni day julli <coughs> te waroon a xam loolu waroon cee def yitteem te jamono jàpp ko ak i xat-xatam bu toppee suñu jotaayu baax bi déglu ko dégluwaat ko xëy na mu doon lu mën a jàpp bu ñu yàlla defalee tawféex sax bëgg nañ koo def ci lu mel ni ay clé be ak ay carte mémoire beral ko waxtaanu boppam woo xam ne dañ ciy jàngale lu jëm ci faratay julli ak sunnay julli jéem koo baaxee mbokki jullit yépp xam naa ne sax doole ju carte mémoire yi fi nekkut ak clé USB waaye kon kenn du ko jaay dañ koy defar rek baaxee ko mbokk yi nga xamante ne yëg nañ ne seen diine yitteel na leen waaye su fekkee loola jàppandiwul nag bañ dajale suñu tuut jënde ko ay clé USB daañu ci def waxtaan wi joxaat ko ay nit ngir dajalewaat ci rek la nga xam ne moom lañ ko jënde woon génnaat ci waaye wax jaag yooyu moom kenn mënu koo jaay ndax ñun ak ñëpp ñoo ko bokk kon dañuy jàpp ne rek ñoo koy defal nit ñi loolu daal ci suñu naal la yu ñu naal di ci ñaanal jullit yëpp rawat na ñuy déglu almisbaax koo xam ne daal fas na ci yéenee def ak jaamu am incha allah ñu ngi ko ci tàllal loxo ñu jàpp lent ci def loolu mu nekk mu naafi la koo xamante ne jubluwaay bi du dara lu jaamu yàlla ak jàllal li nga xamante ne mooy suñ bind diine ñoo ngi koy yëgal soppee almisbaax yëpp di ñaan suñ borom mu defal ñu ci ndam mu mel ne suñ borom subhaanahu wa taala julli dafa tàmbali ci alxuraan ba koy digle rek wax ne wa aqimu salaata taxawal leen julli taxawal leen julli kon julli leen ndigalul suñ borom lañ ci am mu dellu waxaat ne xaafizu ala salawaati wasalaatil wusta wa mu mel ne ku naan sàmmoonte leen ak julli yi sàmmonte leen ak julli yi góorgóorlu leen ci waaye defandoo leen ko kon nag julli mbooloo day daal di nekk loo xam ne kon lu yàlla gàll ci loosu jullit yi la bokk defandoo leen ko saxaaba bu ñuy wax abi hurayrata radiallahu anhu net li ci xadiis bu am solo boo xam ne war naa tax ñun ñëpp ñu góor góorgóorluwaat buñ ko déggee bu baax ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dugg ci biir jàkka ji fekk jenn waay di julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di toog ba waa ji jullee ba noppi ñëw nuyu ko yonent bi fay ko nuyoo ne ko demal nga julli ci ndax julli woo woon li nga doon def kenn du jullee noonu maanaam gis na waa ji waa jaa ngi kàbbar mi ngi rukkoo mi ngi sujjóot waaye yonent bi nee na ko julli woo de demal julli ji dëgg-dëgg yow kon mën a julli boo demee suñ jàkk yi di xool tey seetlu léeg-léeg loolu nit mën na ko cee gis waaye ñun ñi julli yit kenn ku nekk war naa laaj boppam laaj boobu ndax man maa ngi julli wala déet ndax yonent bi dafa wax waa ji ne ko erjix fa salli fa innaka lam tusalli julleegoo julleegoo mbokk yi ndax ñun julli nañ wala julleeguñ ndax bi ñuy julli biñ taxawee xam nañ taxawaay bi li muy tekki ci julli gi ndax xam nañ rukkoo bi ñu def li muy tekki ci julli gi ndax xam nañ sujjóot bi ñu def li muy tekki ci julli gi ba ba ñuy sëlmal ndax liñ doon def xam nañ ban àtte la am ci julli gi bu loolu jàllee nag niñ ko doon defee ndax noonu la ndax bi ñu rukoowee nee nañ fa tekk ab diir ba wax fa ay baat ba marqué point boobu ndax bi ñu sujjootee def nañ ko ndax biñ toogee def nañ ko ndax biñ taxawee def nañ ko bi ñu jàng alxuraan nan lañ ko doon jànge waa ndax daloon nañ wala déet yàlla dafa yéeme. dama koy wax barki démb ne la nga gis nit di def dara boole ci ak ëppal wala yëngatu bu bari ma ne ko suñ boroom mi nga xam ne moom li mu santaane la ca gën a rëy mooy julli dafa bokk ca lay tax julli gi wér mooy kii julli ànd akuk dal kon dal baax na ci lépp dal baax na ci lépp te olof yi dañuy faral di wax ne xët-xët moom jëriñu dara te ñaare léeg-léeg mu jur réccu wala mu jurug yàq nit wërta mer ba tax muy xët-xëti nit wërta kontaan ba tax muy xët-xëti xët-xëti nag baat bi ko dégg xam ne diis na mooy nit koo xam ne la muy def rek defewu ko sagoom suñ borom subxanahu wa ci ak yéemeem ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ki nga xamante ni dafa jóge këram dem di julli ji te ñu raw ko maanaam ñu kàbbar muy dox di julli ji nee na doxal dox bu dal yàlla waxu foofu sampal saw xel. te bu doon xët-xët dagan na foofu mu ne la sampal saw xel daw bala ñëw sëlmal nga dab leen waaye yonent bi dafa wax ne dox leen ànd akuk dal ànd akuk wegu maanaam ab jullit dañoo bëgg buy dox ku ko gis respecté ko ku ko ku ko gis respecté ko mu correct ba noppi aw doxinam dal ba noppi aw doxinam dal ba noppi nag muy ku bëgg boppam waaw mu ne boo àggee lañ la raw nga bokk ci julli ga boo sëlmalee mottali ko boo fekkee julli ga sëlmal nga kàbbar julli sa julli ma ne gannaaw yàlla nag julli mbooloo ni mu ko bëggee ak lim ci soññee yépp yonent bi nee na booy dem ci jàkka ja ku la gis bum la yërëm waaw léeg-léeg ñun nga gis koo xam ne buy dem ci jàkka ja jàllaabeem bu euh, bum bum gëj a sor rek lay jékki-jékki rek ruggi soli carax waaw soli carax léeg sax jàllaabi bi tubay ju àggut ci wóomam la koy jiitale daal di waaxu wuti jàkk ja jàpp ne julli gi moom c'est comme bi ngay dem ca jàkk ja rendez bi nga fa am dafa rëy ndax sa boroom nga fay dajee li sa moroomi jullit nga fay dajee li war na koo dajeel rek mu xemmeem li ngay defi moo tax mu xemmeem li ngay defi gis nga sa doom ji ci kër gi sax bu àjjuma jotee léeg mu yàkkamti ko ndax yére olof bi nga ko nar a solal yére bi set ngeen ànd dem jumaa ja léeg mu am bu dee ñi nga xam ne jàpp nañ ne yére boobu bi su àjjuma rek lañu ko war a sol waaye yow mi jullit ji itam booy góorlu ci loolu ak yi nga xam ne moo ci aju day mujj nit dana ko xemmeem ndax yow ab jullit daa war nit ñi di xemmeem diine jim nekk ndax moom waaye dëkk ak kudutub jullit ci kër gi wala koo xamante ne góorgóorluwut ci diine waaye gisut ci yow jenn jikko ju muy xemmeem dangaa war nag wax dëgg yàlla mu gis jikko joñu xemmeem ci yow ci la la nga defal ko teraanga yëkkati dara maye borom bi nit ñi di leen nuyu di sol col gu set boo ko mënee ngay xeeñ lu neex ba noppi yéene nit ñi jàmm sa kanam nga fecc ko ci nit ñi ba koo dëkkal rek bu ñee est-ce kii ak a baax ñu ne ab jullit la moo tax mu mel nii ak a baax ñu ne kii kat ab taalibe la moo tax mu mel nii taalibe nag buñ ko waxee nit mën na koo askanale ci kër gu nekk waaye mooy koo xam ne yarub mag ñi def na ci moom jeexital koo xam ne yarub mag ñi def na ci moom jeexital rek baat boobul mën nañ koo dégge noonu abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi bi mu duggee ci jàkka ji waa ji fa julli ba sëlmal ñëw nuyu ko yonent bi ne ko demal nga julli ji julleegoo demal nga julli ji julleegoo kon yonent bi ab jàngalekat la kilifa la moo gën ci nit ñi yàlla yónni ko ci nit ñi mu nekk yonent boo xam ne dafa ñëw ngir jàngal nit ñi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Mbay Abdu yal na ko yàlla yokk wér jàngalekat bu mag la buñ ko waxee moom bu ko déggee xam ne yàllaa tax ñu wax ko ndax xam naa ne buñ bu dee mas nañ koo jox loxo benn yoon la waaye dégg nañ ci waxtaanam muy wax ne góor gu baax ga sëriñ Abdou Aziz da baax daan na wax kenn ci njaboot gi ne la jullil jullil nga kàbbar julli mu toog di la xool nga xam ne way gi ngay am ci julli géeg ni nga koy defee rek day yéeme ci yëg gi nga yëg ni mi ngi lay contrôler loolu ci xeetu jàngale la bokk ci xeetu jàngale la bokk ndax ñun bari na loo xam ne li tax ñu koy ñab-ñabal dañoo gëmagut ne yàllaa ñu teg bët di ñu xool waaye bu nekkoon ci biir nit duñ def noonu am na koo xam ne bu nekkee ci biir nit ni muy tooge mën naa am bu wéetoon du nangoo tooge noonu waaye bi mu nekkee ci biir nit ñi ba jox nit ñi worma ba mu demee ba wéet ak suñ borom nag ba wéet moom kese suñ boroomam fa di ko wéttali xëy na mbirum nit mën na koo gaar waaye nag am na worma ju nit di jox boroomam bu wéetee ak bu wétali ko alayhi salaatu wasalaam ne waa ji demal julli julli jéego waa ji demaat julli fa salla kama kaana salla mu julli comme nam ko defe woon summa jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayhi mu daal di dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fay ko nuyoo daal di koy waxaat ne ko demal nga julli julleegoo maanaam waa ji julli na ba sëlmal allahu akbar taxaw na def na lépp ba sëlmal ñëw nuyoo ki yàlla yónni woon ci ñun fay ko nuyoo waxaat ko ne ko demal nga julli ji julleegoo <laughs> waa ji jaaxle na keroog waa ji jaaxle na keroog waa ji daal di delluwaat waa ji daal di delluwaat daal di julliwaat <laughs> bi waa ji delloo defaat lim defoon te mooy daal di julliwaat def na ko ñetti yoon yoo xamante ne baagante na ko di dem ak ñëw ñetti yoon mu di ko baagante di dem ak ñëw di julli ji saa yu demee rek julli ba sëlmal ñëw nuyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi fay ko am nuyoo ne ko demal nga julli jullee goo mhm. demal nga julli jullee loolu liñ ciy dégg mooy kon julli dafa am am njàngat mu ci nekk dafa am loo xamante ne kii julli war na koo bàyyi xel ci fànn yu bari ci setantal ko bu baax ndax mooy tax julli gi di mën a def ci moom jeexital yi nga xam ne moom la suñ boroom wax ni kiy julli jeexital yooyu julli da koy def ci moom bokk na ci jeexital yooyu euh, julli gi tee koo def lu bon tee koo def luñ sib bi ko waa ji defee ñetti yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko wallazi ba'athaka bil haqq maa ngi waat ci suñ boroom mi nga xam ne moo ma yónni te yónni ma ci dëgg maa ngi waat ci sama borom mi ma yónni te yónni ma ci dëgg nii nga jullee bokkut ak ni nga xam ne noonu laa jàngalee daal di jàngale na nga xam ne noonu la ñuy jullee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal wax ni ku jóg jëm ci julli da ngay kàbbar ñu déglu yow mi bëgg a julli nii li ñuy jullee da ngay taxaw kàbbar kàbbaru armal nee na bu noppee mu jàng lam mokkal ci alxuraan maanaam lam lum lu mu jàng baax na rek la ci jublu waxu ko mu jàng faatixa ak saar sàngam faatixa jaa cay farata lum ca teg rek ci alxuraan baax na yonent bi nee na ko su noppee mu rukkoo waaye nag xatta tatma inna raaki an mu rukkoo ba ku ko gis xam ne kii rukkoo na mooy rukkoo ba dal ba dal siggi ci rukkoo bi xatta taxtadi la qaa iman ba taxaw jonn bu noppee mu sujjóot xataa tatma inna saajidan mu sujjóot ba dal maanaam du mel ne ginaar guy cof siggi ci sujjóot bi toog ba dal xataa tatma inna jaalisan noonu lay defee julli gépp ba julli gi jeex ci biir njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu mën a jàngale moomu danga ciy gis ne li suñ boroom maanaam li yonent bi doon jàngale waa ji te mel ne moo manqué julli waa ji booy seetlu waxin wi mooy ñàkk dal ñàkk dal ndax déggoo ci mu ne ko nga jàng faate da ko wax ne ko nga kàbbar jàng li nga man ci alxuraan kon jombut waa ji def na ko waaye dafa insisté ci dal gi su marka hatta tatma inna raakian su marfa hatta tatma inna xaaiman su mas jut hatta tatma inna saajidan ba julli nga jeex kon kuy julli na sàmmonteeku dal waaye nag li ñu dégg ci xadis bi mooy ndax ñun bi ñu julli bu alayhi salaatu wasalaam nekkoon ci suñu wet ñuy julli ndax ni ñuy jullee buñ sëlmalee danañ ñu julli nañ wala ñun julleeguñ loolu jar naa laaj julli waxoon naa ne la dafa am ay faraait ñu koy wax faratay julli boroom xam-xam yi lim nañ ko am na ay wuute masoon naa caa ñëw ca suñ bind yële danaa ci ñëwaat ci wuute yi waaye danaa la jox ab lim tey lim boo xam ne dana mat fukk ak juróom wala fukk ak juróom benn ci yenn ci boroom xam-xam yi jëlal sa big ñu nafar faratay julli te jàll faratay julli ba ca njëkk mooy yéene yéene palaasam mooy xol kon doo taxaw di julli naan fas naa yéene julli waxtu sàngam bu ñaareel bi ci topp mooy kàbbar kàbbarub armal mooy wax gi ngay wax allahu akbar bi ngay tàmbuli looloy kàbbarub armal bu dee góor na yëkkati ay loxoom ba mu weesu ay mbaggam tolloog ay noppam bu dee jigéen itam na ko def lu dul ne dafa sol yére boo xam ne bu ko defee yére bi wogosu ba ay loxoom génn lu dul ne dafa sol yére boo xam ne bu ko defee yére bi loxosu maanaam wogosu ba ay loxoom génn danaa ci ñëw ci gën a taxaw ci yaatal masala yooyu waaye gannaaw da bind ñu jàll bu ñetteel bi mooy taxaw gi ngay taxaw di kàbbar kàbbaru armal bu ñeenteel bi mooy jàng gi ngay jàng suratul fatiha bu juróomeel bi mooy taxaw gi ngay taxaw di jàng sóoratul faatiha bu juróom benneel bi mooy rukkoo moom it nag na ànd akuk dal bu juróom ñaareel bi mooy septième ba taxaw jonn moom na ànd dal bu juróom ñetteel bi mooy sujjóot bu juróom ñeenteel bi te mooy neuvième bi mooy siggi ci sujjóot bu fukkeel bi mooy toog bi ngay toog ca taaye ju mujj ja maanaam toogaayub sëlmal lañ koy wax al julus lis salaami toogaayub sëlmal fukkeel bi ak benn mooy sëlmal fukkeel bi ak ñaar mooy yamoo kuy julli dañoo bëgg mu taxaw taxaw bu yamoo bañ a wéeru ci dara bañ a pant léeg nga gis kuy julli sànni fu ne tànk pant nga xam ne yow sa texit gi da nga koy yóbbaale booy julli sax di texit texitlu kenn waxu la loolu fukkeel bi ak ñett mooy dal dal bi ngay julli da ngay dal doo julli di yàggaayu di di ming la la ngis koo xamante ne comme ni ngay jàngal alxuraan di ming nii déedéet kuy julli kenn bëggul muy ming dañoo bëgg mu dal fukkeel bi ak ñeent mooy toftale farata yi yii ma la wax muy ay farata daa war di toftaloo urukoo ngay njëkk a def doora a sujjóot waaye taxaw jàng faatixa ngay def door a rukkoo kon danga koy toftalee la war a jiitu jiitu la ca war a topp topp ci fukk ak ñeent yi boo demee ci fuqaha yu bari foofu lañ ko yemale waaye ci wuuteeg boroom xam-xam yi am na yu ci yokk ñaar mooy bu fekkee dañ lay jiite nga topp ki nga xam ne mooy sa imaam farata la ndax ku jiitu imaamam ak julleem du wér fukkeel bi ak benn walla boog waaw mooy fukkeel bi ak juróom-benn laa bëgg a wax seeseem bi mooy yéene ji nga yéenee roy sa imaam am na boroom xam-xam yu ko boole ci faratay julli. ay tomba ngi noonu yoo xam ne xëy na jàpp ko ci waxtaan wi nii mën na laa xaw a xat ci yow mën naa xaw a euh, nu mu tuddati waaye ab tàmbali la boo xam ne danañ ko gën a yaatal ni ma ko waxee léegi bi may door waxtaan wi insha allahu taala am nañu yéene yaatal ko def ko ci ay jumtukaay yoo xam ne jullit yi danañ ko mën a jariñoo def ci lu mel ni faratay julli yi def ci lu mel ni sunnay julli yi def ci lu mel ni sart yi tax julli gi wér def ci li yàq julli def ci faratay njàpp def ci sunnay njàpp indi ci ay leeral yenn ci yi nga xam ne day yàq njàpp yal nañu ko yàlla jàppandi lan wax naa bi may tàmbali ne bu fekkoonte ne niñ ko bëgg a defee lépp dafa jàppandi dañuy noppi rek ne ma nga bërëb sàngam jullit bu mu yitteel na fa jaar jël ko loolu nag mi ngi aju rek ci jàppale jullit yi su fekkee loolu amul nag daañu wut jumtukaay yuñ ko def xool jumtukaay yooyee la muy jar ñu joxewaat ko nit ñi lu ni toll insha allahu taala wut ay clé USB su fekkee nangam la kele bi jar rek loola la waxtaan wi jar bu boobaa baa boog jéem koo def ci machine ku ñëw ñu defal la ko ndax jubluwaay bi ci suñu ndigal fii ci rajo bi ak suñu ndigal ca daara ja muy Oustaz Alioune Sall ak ñu koy jàppale mooy ñu fexe rek ba waxtaan yi yaatu ñu fexe ba julli di jàng seen diine fexe ba ñu nafaraat fexe bañ fàttaliku yi jàll ñun nag comme masala yi féete suuf lañ ñu digal ne nañ ko nafaraat masala mii daa mel ne dese naa mokk ci man moo tax ma bëgg koo nafar xam naa ne sax mokk ni ci yéen nafar gi ma koy nafar man mooy jàllaale ci yéen mu nekkaale seenu nafar maa ngi jéglu baax nag doomi soxna yi kilifa yi nga xam ne ñoom weesu nañ niveau bi may waxe tey ñëw di jàngale farate jullaa ki sunnee julli te fekk ñoom ña nga ca kaw a kaw a kaw ca université yu mag ya nga leen di jàngal lu ñuy jàng ci jardin d'enfants <laughs> mën naa tuuti ci ñoom waaye nag léeg fàttaliku daara yi day neex léeg fàttaliku daara day neex xam naa moo tax ñoom danañ wéttalantee ñun ci jotaay bi ñoo ngi ndokkeel bu baax ñuy bàyyi xel baax yépp farate jullee ngi noonu ñu daaneele ko jotaay bi daañu wéyal leneen li ci topp lu mel ni sunna yi ak yeneen yi nga xam ne moom lañ wax yéeni jooju ñu am nag ak mibét moomu ni ma ko waxee bi may ubbi ñoo ngi ciy xaar jullit yépp képp koo xam ne am na yéeni jàpp ci loolu ñoo ngi ko ci tàllal loxo ñaan suñ borom subhaanahu wa mu musal ñu ci saytaane bañ mën a def ci suñ diine ñaan ko mu musal ñu ci ay calcul yu bari bañ mën a jaamu yàlla ci lu ñu yàlla di wër wërsëgale ndokkeel itam ñi nga xam ne ñoom dañ naan ay suma ko amoon kon day li ngay wax danaa ko def nangam yàlla nee na dina fay yéene yéeni jooju moo ëpp tiyaa fuuf koo xam ne daa mënta defut wala ku mënta def te àndut ak yéene yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxaw yal nañu yàlla boole suturaal waxoon naa suñu numéro ca jotaay yi ko jiitu xam naa jomb tey ñu di ci ñëwaat waaye buñ xamee ne laaj na ko it buñ ci amee ndigalul kilifa yi danañ ko joxe incha allah jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfal oustaz Alioune sàll ci kanam tuuti moom lañ leen di dégtalal waxtaani fajar yi nga xam ne waajal na ko ba bàyyi ko fi ñaan suñ borom may ko noppalu jàmm mu dellu fekkaat daara jàmm seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.